nga Moussa li ngay wax nii xam nga le procureur il gère les intérêts de l'État xam nga li ngay wax nii yéen yéen de la société non xaaral rek et de l'État ci seen ci seen logique ngeen mën nañ jàpp ba tey ne ci ma corriger la aussi pour fekkee da ngay wax yoo xamante ne ma ne sur le principe le procureur représente la société mais dans la réalité mm. et dans ce dossier judiciaire là et ça je le procureur gère les intérêts de l'État. mais c'est quoi le procureur il gère les intérêts de l'État. waaw mais c'est quoi les intérêts de procureur bi. procureur bi ci logique la nekk. mais xaaral ma wax la xam nga ñun nous ne sommes pas des dañuy jël affaire yi jàngat ko jàngat ko laaj laaj laaj laaj ba mu simple ci ñu ku ñu d'abord première incongruité dafa mel ni dans cette affaire <laughs> l'a dit et redit dafa mel ni dans cette affaire là euh, l'État. wala le le le le parquet fait exprès de ne pas respecter les procédures fait exprès de faire dans la contorsion pour mun a glisser yenn affaire yi xam nga Ousmane Sonko yéen xam ngeen fa mu dëkk yéen euh, këram dañ ko barricadé pendant 60 jours mm-hmm. il est jugé par la chambre criminelle bu fekkoon ne dañoo amul amul lux-lux ci biir dañuy dem këyir ko indi ko Ousmane Sonko ñu ne dañ ko jugé par par par par par par contumace ñun li ñu mas a xam ci contumace mooy ku ñu gisul ku ñu xamul fa mu fa mu fa mu fa mu fa mu nekk. gisoon ngeen ko xamoon ngeen fu mu nekk ñu ne d'accord soit ok y a pas de problème condamné dans l'affaire Adji Sarr par contumace ñu ne buñ ko arrêté mbaamu mu livré wu les charges la la la la les dañoo war a organiser un procès dans les meilleurs délais. waxuñ buñ ko arrêté préciser ñu de arrêté nañ ko même pour autre motif mhm. il y a beaucoup de juristes man nag du ma juriste selon beaucoup de juristes et li ma jaaxal mooy dafa am une jonction dafa am euh, beaucoup de juristes yi ma dégg ñu wax ñëpp sauf ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci état nee nañu à parti du moment où il a été arrêté les charges sautent. non ça ça, ça c'est une vision simpliste du texte. non la chance man je dis la chance man peut-être dem nekk barreau de Paris jurisprudence française mu ngi ci am am la jurisprudence elle est constante dans la matière elle est constante lii il est arrêté pour autre il n'est pas arrêté pour cette affaire de Adji Sarr. mais ne contumace la bu ñu ko cause. et dès lors on discute loo xamante dès lors qu'il y une décision du tribunal. tribunal àtte na ko loolu pare àtte na nag effectivement que que Sonko dans son affaire euh, de contumace la contumace elle est définitive puisque même son acte a ay a été retiré loolu leer na léegi loolu dafa leer loolu les gens peut-être ils ont ils veulent bien ci foo xam ne naan naan wooy la loi ne distingue faut pas distinguer la loi ne distingue pas euh, dès lors qu'il est arrêté rek ça suffit non il avait le temps et la possibilité de se constituer prisonnier loolu la la loi wax defu ko mais il subit les conséquences et d'ailleurs la la l'article 307. alors dès lors que les formalités sont sont accomplies. toutes les déchéances lui sont applicables. sa benn sa benn xarit. maître Bamba Cissé. oui sama xarit la moom vraiment maa ngi koy nuyu. avocat de lui il dit dafa nee na cette affaire là pose le problème de la divisibilité du personnage de Sonko alors est-ce que le Sonko. Euh, euh, euh, condamné dans l'affaire Adji Sarr est-ce qu'il est différent du Ousmane Sonko bi nga xam ne da ngeen ko jàpp pour voie de fait euh, atteinte à la sûreté de l'État et cetera et c'est-à-dire c'est comme ça qu'il ramène la la la la la chose c'est-à-dire si on suit certains euh, certains suñu suivre ñenn ñi dafay mel ni les ñaari usman Sonko yi du benn ce n'est pas la même personne euh, on on ne parle pas de la même personne. non vous savez que prime moom moom dafa dafa juum. sama confrère boobu. Hmm. pour pour moi il voit le côté physique de la personne. mais Sonko il est arrêté pour de faits jugé pour des faits chaque fait à sa procédure chaque fait à, à sa propre procédure donc c'est les faits qui sont jugés. Hmm, moom les faits euh, aujourd'hui les faits de euh, viol c'est un théoricien oui je connais c'est un bien sûr c'est un théoricien mais je dis ma la ma wax ni ah. ma wax du ma wax du dañ aujourd'hui il le sait très bien d'ailleurs tey ils très bien parce que ñoom xam nañu xam nañu ce que ce que ce que la jurisprudence qu'est-ce qui est dans dans la pratique lan la xam nañ très bien que quand personne est pour autre cause ça n'a rien à voir ah la contumace la contumace elle est définitive loolu moom loolu moom c'est clair et d'autant plus c'est même confirmé par le par le tribunal qui a rendu une ordonnance pour dire que c'est définitif j'ai vu de quand les quand les quand les sympathisants de Sonko jubilaient ma dégg certains gars du pouvoir ñu ne moo bàyyi leen ñu jubiler lii c'est un verdict d'apaisement bu ñu demee cour suprême. <laughs> non xam nga. dañuy delloowaat buum ca non non xam nga xam nga xam nga justice aussi. et sa c'est ça le charme c'est le charme de de notre pays aussi. Ah. le droit droit le le droit le droit c'est dynamique du c'est pas un les fekkee texte yi texte yi rek ça pouvait permettre de pouvoir prendre des décisions simplement mu mu de de loolu day yomb mais euh, tout le monde sait que le droit est d'interprétation dynamique. ban yaakaar nga am aujourd'hui euh, bu Cour suprême statué dans dans dans dans, dans une dizaine dizaine de jours dans cette affaire là. dans quelle affaire. dans cette affaire là dans l'affaire de la radiation. de, de la radiation de ah. de, de Ziguinchor. Ah. mais nag nee naa la que démontre naa la fii que la décision de Ziguinchor c'est une décision boo xamante ne irrégulière. est-ce que la sentence de de de Ziguinchor wala dinañu man je pense man man su ma ko doon su ma ko en pur droit sans aucune considération sans aucune considération en pur droit étudiant de, de deuxième année de droit bu ko juger cette affaire de radiation de la décision de Ziguinchor daf koy annuler parce que nee naa la encore c'est une décision qui est illégale irrégulière qui n'est pas fondée en droit wax naa la ko ni sur la forme parce que lui ni ni le juge lui-même il n'aurait pas dû se euh, prononcer dans cette affaire. léegi et, quoi sa ça question que je me pose pourquoi muy entêté wu pour juger cette pourquoi de wane wane délicatesse ak ak ak ak élégance du yeneen magistrat di taxawee dans des cas similaires pourquoi pourquoi cette cette cette précipitation les gens plaident pendant une heure pendant onze heures douze heures les gens débattent déposent des mémoires en cinq minutes vous rendez votre décision vous comprenez aisément pourquoi jusqu'à présent décision bi n'est pas encore disponible parce qu'il a du mal je sais il a du mal aujourd'hui à rédiger sa décision parce que mais motiver sa décision il a il a il a, il a beaucoup de mal je que décision bu demee Cour suprême dañ koy raaj loo et que les gens arrêtent de penser que Cour suprême bu fa demee comme ni koy waxee ci wolof la mbooy mbooy beeg yooyu non les magistrats de la Cour boo gisee tey suñu architecture judiciaire ñu prévoir bu ñu la bu ñu la attee première fois soo d'accord da ngay def appel boo d'accord nga dem Cour loolu magistrat day juum juge day juum. léegi ñaar ñëppay juum. ñaar amul ku dul juum la justice comme ma faral di wax rek la justice tout le chaque magistrat tend à à à à la perfection c'est une ñëpp tendre vers la perfection loolu ñu am en mathématique d'ailleurs cette formule euh, les c'est une asymptote asymptote. ñaari mbir moo de d'aller vers la perfection mais la justice parfaite elle est divine. elle n'est humaine.